سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تكف بها كل البلاء والبلواء والدهن والتهوان وكل الآفات اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها من كل مكر سوء من الجن والإنس وكل مكر اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة صلاة بها من كل خفلة وتجبرنا بها من كل كسرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعزنا بها من كل سبلة وتكرمنا بها من كل حقيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغنينا بها من كل محسية وتغمدنا بها في كل رحمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تغفر بها لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت أهلم ما بنا من حجز وضعف ولا تزل لنا راهما وبنا لاتفا اللهم كن لنا كرما وفضلا منك أبدا في كل نازلة عفوا رؤوفا اللهم لا تجعل أحد منا بليدا يا أرحم الراحمين اللهم عبد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سلم وسلم وبارك على سيدنا الكامل وحرمة الهامة اللهم سلم وسلم وبارك منزل بسابقة اللهم صل وسلم وبارك على سلمته نازل من هدد ولايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة بها من شكر هذا المولد ومهبته ومن سنة القبر وظلمته ومن عذاب جهنم وبئس المصوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تدخلنا بها جنة مع الأبرار فنهم المواب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سرادا ترينا بها في جمحتنا يوم المهاد ما نحبه وما نهوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكون لنا في رمس خبة تقي والشر والجوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه الكم ملاهي الاقوال وعلى سيدنا محمد صلاة تطير بنا في مغار الصراط كلام الترفيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تقف بها أنها قامت في يوم الموقف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد jërëjëf sëriñ Cheikh Diagne su ko defee day mel ni imam bi excellent di أسماء فيها دافية لها عين جارية لها سرور مطوى وأسواب مرضى وأنهار محفوظة والزلابيب مردودة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بشيء إلا من تولى وكفر وما أرسلت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 للنبي ولمن يقتفي فيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من طلع وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى لوجه الله تعالى القائد وأعذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والآداب فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فتوبى لمن لا يلتفي إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبي وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أغزى وأرسى قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخصوه وقال تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وطوبى لمن أخذ ما أتى به رسول عليه بآله وصحبه سلاما معتزول وللتي همته ترتقي إلى الخير لا إلى القدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سبيل العصر والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبد فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبد وأنهاكم عن فعل كل ما لم تبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم إلى خيركم الأجر والرضا والصواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاي عبده نبيه رسول العظ فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع النفس وهوى ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميل يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع في عند مميت ميته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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسع والتفريق والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه سبيل الوفاق وعلى من تابع بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد فيه المنتقى للمنتقى عليه السلام بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق رتق ومن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصر بكل ما من الغير يستفيد فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم دائرة وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم سبيل الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أدو من أبوا فيه في الاجتماع سبيل الغزوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه سبيل الأرضية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 ayyuhal muslimuun yéen mbokki jullit ñi mu ne na ngeen sàmmonteeg seen diine na ngeen sàmmonteeg seen diine wattaqullaha na nangeen ragal yàlla ngeen jaamu ko te sellal jaamu gi sellal moo di ni ko yàlla bëggee nga defe ko noonu selal moy ni ko yalla beugé nga défé ko noonu mune na ngeen di julli ge sa mbolo mo na ngeen di julli tamit ci waxtu mune kep ko xamni nak da nga bëgg mucc ci safara wala nga bëgg dug aljana wala nga bëgg am ngaramul yalla, na nga jaamu ji yalla mbokki julli ni na ngeen wétal yalla bu len bokalé yalla dara ngir wax gi nga xam ni subhaanahu wa taala wax na ko wala tusriku bi ahad bu leen wa maa umiru illa li yabudallaha muxlisina lahu diin wa maa umiru digaluma leen illa li yabudallaha lu dul ngeen jaamu yàlla muxlisina lahu diin unafa ngeen sellal ko wa yuqimu salaata na ngeen julli wa yuto zakaata na ngeen di génne asaka wa zalika diinul qayima lii mooy diine ji su fekke ni baye nga fi julli du fekke ni baye nga fi zakat alquran li lañu wax wama umiru digaluma leen ila li abdullah lu ngeen jamu yàlla mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu salata ngeen di julli wa yu'tu zakata ngeen di joxe asaka wa sadika dinu khayma muni nak innal ladina amanu gaay nga xamni dañu gëm wa amilu sayata def lu baax ulaayka hum xayrul bariya nee na ñii ne ñu baax ñi mu ni nag léegi génn nañ ci weeru koor nañu continuer ci jaamu yàlla ni ñu con ni nekke woon ci weer wi nañu ko continuer noonu nawaafil yi nañu koy def sadaqaat yi nañu koy def te mooy sarxe yi te ñu ormal te ñu sàmmanteeg ayaamul biir yi di ko wóor mooy la treize le quatorze le quinze nañu koy fonk di ko wóor yonent bi alayhi salaatu wa salaam digle woon na ko ni dee leen ko woor digle woon na yonent bi alayhi salaatu wa salaam digle woon na dee leen wóor bisu altine dee leen woor bisu alxames ndax ñaari bis yi si la ñuy yóbbu jëfi jaam yi te man yonent bi alayhi salaatu wa salaam bëgg naa saa bu ñu yóbbu sama jëf mu fekk ma ma wóor na ngeen di julli yoor yoor na ngeen di julli yoor yoor na ngeen di dimbali way ñàkk ñi na ngeen di julli guddi na ngeen di dimbali école alquran yi dimbali leen daara yi dimbali leen daara yi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani xayrukum ki gën fi yéen man ta'allama alquran mooy ki jàng alquran wa allamahu te dem di ko jàngale ji kon ñooñu nañu leen bàyyi xel jàppale leen nañu jàpp nañu bàyyi xel ci dimbali leen nañuy tabaxi jàkka nañuy tabaxi jàkka du ñu tabaxee jàkka ba noppi di dem sa jàkka ja di fa julli ji du ñu wootee wuy ji leen du ñu wootee wuy ji leen bàyyi leen toog si seen kër yi di julli yàlla ñi mu wax ne ñooy julli xaqan innama yaamuru masajid allah man amana bi daway wax mooy ñi xam ni dañuy dundali jàkka ja yàlla nee na ñii ñooy jullit xaqan waaye ku fa bàyyi jàkka ja nag nekk sa bopp tamit yaa ngi si la nen na ngeen di gasi ay teen am na dëkk yoo xam ni néew nañu doole dee leen fa dem di leen basay teen mu nekk sadaqa jaariya du àllëgee du ngeen fi jógee ku fa naan yool ba fekk leen fa ngeen tëdd dee leen jëmbati garab àll picc mu sa lekk wala nit ko sa lekk ngeen am sa yool ba yéen mbokki jullit ñi na ngeen sàmmonteeg seen diine na ngeen sàmmonteeg seen diine l'islam aqida la l'islam sharia la aqida moo di pas-pas li nekk ci sa ci sa xol sharia mooy li nga xam ni yàlla moom la tëral ni awe doxe leen ko nii awe leen ko nii lii du amee lii lii la mooy luwaay yi nga xam ni yàlla moom la tëral loolu moo di sharia nañu sàmmante moom islaam nag day digle islaam day tere lan la islaam di digle ixlaas sellal islaam yi nga ñu koy digal lan la ñuy tere ngistal du la digalee ni la deel sellal mi ngi la digal ni la na nga ko ngistal lépp looy def na ko def rek ngir yàlla bu sa xool dara def ko rek ngir yàlla yàlla moo la sant joxeel joxeel rek ngir yàlla islaam mi ñuy sant ñu topp sunna di ñu tere ñu bàyyi fi bidaa jamono ji bidaa si la dund bàyyi nañu sunna dundeetuñu sunna bàyyi nañu sunna teg fële biddaa rek la ñuy dund te biddaa mooy topp sa bakkan te doo toppee sa bakkan yi du ëllëgee safaan bi la la jëmee islaam lan lay digle na ngeen ponk waajur yi na ngeen ormal waajur yi na ngeen teral waajur yi bu leen fitnaal seen waajur yi bu leen fitnaal seen waajur yi lii la leen islaam digal te yàlla subhanahu wa taala lii la digal jaamam yi islaam mi ngi digle mbokk gi na koy fonk bu leen di yàq mbokk gi bu leen di yàq mbokk gi mbokk gi dagg nañ ko yàqaati nañ ko te dara waralu ko mbiru àddina rekk la benn alal bu ñuy xëccoo wala daraja ju ñuy xëccoo wala lu ñu intérêt rek bu ñu xëccoo moo tax dagg nañu mbokk gi yépp kër goo dem féewala ñu ñuy jëm ñuy jëm du dara du du seytaan rek moo leen not teg leen loolu islaam mu ngi dégle maandu islaam mi ngi dégle maandu maandu mooy lu mu doon rek nga jox ko àqam bul xañ kenn àqam bul xañ kenn àqam loolu mooy maandu bul xañ kenn àqam islaam day tere tooñ di digle dëgg di tere ay fen di tere wara ak njar di jaay dara dugal sa loo xam ni bokku sa ngir mu yokk sa bénéfice yokk mais bénéfice du yokku ndax riba moom mënul yokku islaam mi ñuy digal nañu laabal xol yi nañu dindi xol yi nañ si dindi li ñu naan kotamu kotamu moo bare ñu jox la dara sant la sa dara nga kotamu sa dara kontaan nga defa ne jàll nga jàlloo danga koy fay ëllëg yàlla nee na na ngeen mooy te di ko kotom duñ la yónnee saako ceeb doo ñëwee neel nangam la jar rek jox ko duñ la ñëwee muul loo wala ñu def loola dara te teg ko si yoon bul kotomu doo dee kotomu ëllëg da ko fay al am na aayaam na ngeen moytandiku soxor ki ñaan na ngeen ko moytandiku bari na feebar yu bare nekk ci xol walla mu nekk ci res dara sababu ko fa lu dul ak soxor yàlla xam ne lii yàlla li mu def kenn mënu ci dara yow li nga def nag mën nga ci dara tabax nga ne bii doo neexee nga toj ko waaye jant bee nga xam ne moom yàllaa ko génn mënoo ko tee génn mënoo koo tee sawit yàlla jëf-jëfam kenn mënu si dara nangu ko te ngeen moytandiku bañante islam bëggu ko na ngeen moytandiku noonoo gi <coughs> te moytandiku tàyyel noon bi gën a bon nag bokk na si tàyyel doo tàyyelee sa àddina du baax doo taayee tamit sa islam du baax nit ku taayel day taaye day taayele julli nit ku taayel day taayele yeewu fajar julli nit ku taayel du julli guddi nit ku taayel yu bare du ko def du dee élève sax du jàng du examen yi ñooy du gis dara moo tax ñu ni li si ñàkk taayel jëru ko li si ñàkk taayel jëru ko islaam lan lay diglee lu baax ak du defare loo gisee luy yàqu nga waaxu ndànk dem defare ko ba loola baax lan lay tere lépp lu bon ak lépp loo xam day yàq islaam tere waxoon nañ ko léegi na ngeen moj moytandiku kotomu subhaanahu wa taala dani waman yarlu képp ku kotomu kotom jël si yëfu waa ji yëfi nit ki dara nga jël sa kotom ku ko def yàlla nee na yaati bi ma xalla yawma alqiyaama du ëllëgee da nga ko delloo kotom moom baaxul dégg ngeen ko waman yaxlul ku kotomu te du ma yónnee sama xale dama naan ko ñaata nga ko jënde nga ne ko nanga man ko del wax da nga ko jënde bul kotomu waman yaxlul ku kotomu yaati bi ma xalla yawma alqiyaama da nga ko delloo su ma tuwaffaa ñu fay nag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat la nga defoon yàlla du tooñ kenn kenn ku nekk doo duggee si bàmmeel sa jëf rek lañ la fay fay kenn du la fa fay leneen waxum laa yuslamuun kenn yàlla du tooñ nee na na ngeen moytandiku riba alquran wax na si laa taakuloo riba bu leen ko lekk na ngeen moytandiku riba na ngeen moytandiku riba wa innama yaakuluna fi butanim naaran safara ngay def si sab jiir te yëgoo ko na ngeen moytandiku riba alquran nee na wa innama yaakuluna fi butanim naaran na ngeen moytandiku bàkkaar yi nga xam ne yàlla mi ngi leen koy tere moo di jëw mooy fen mooy lekk alal nit ñi ci ay caaxaan ci ay tappale moo tax alquran inna allaha yaamurukum yàlla mi ngi leen di digal anta addul amaanaat dee leen ko joxe li nga digganteeg nit ki li nga waxanteeg nit ki na nga ko matal bul sa dindi dara way saa xakamtum bu ngeen di àtte bay na naa si si diggante nit ñi ngay àtte ñaar an takumu bil adli na ngeen ko atte ci maanu na ngeen ko atte ci maanu inna allaha kaana samian basir de yàlla nee lu ngeen fay wax maa ngi kiy dégg lu ngeen fay defin maa ngi koy gis atte leen rek ci dëgg mu ne yaa ayyuha allazina amanu yéen allah topp leen yàlla waateo rasul ngeen topp yonent bi wa ulil amri ak boroom xam-xam yi leen teg si yoon fa in tanaazatum bu ngeen demee ba wuute am seen diggante kii ni nii la kii ni nii la fa in tanaazatum bu ngeen demee ba xëccoo nekk seen diggante kii naan nii la kii naan nii la ak mbir mu mu doon alxuraan nee na farudduhu ilallah dellu leen ci yàlla te mooy dellu leen si alxuraan du ngeen demee mu àtte leen àtte yomb na dellu leen si alxuraan du ngeen delloo si alxuraan mu àtte leen waaye nit mënul àtte boppam yàlla mi teg charia moo mën a àtte waaye nit ki mën a teg ay luwaam luwaa bi doo ko tege du àll nga dindi ko teg fa keneen du ko dee ñëwee dindi teg feneen du ko dee ñëwee dindi feneen loolu du luwaa luwaa charia la du soppeeku waaye lépp lu soppeeku mënul àtte ay intérêt ngay topp rek in kuntum tu'minuna billah du fekkee na jullit ngeen du ngeen dul julli nag yéen a xam alxuraan loolu zaalika xayrun wa ahsanu ta'wiil alxokaam nee na attekat yi la mu ni du fekkee ni ñiy atte rawatina ñi nekk si tribunaux yi di atte damay wax ni tribunal war na nañuy bind sa buntu ba آية في القرآن هاتوا برهانكم إن لين بروفي دو بروف أمو رك القرآن نانا بولين أكتر دار باخو ديدت هاتوا برهانكم إن لين بروفي إن كنتم صادقين دو فاكين دو جميل بغي موكي جلين نانجين مويتان ديكو على الجريمي am na ñoo xam ne yàqu yàqulu na turaasa dañuy lekk ndono yi ak lan lamman ak foqale te dara dara tegu leen ko wa tuhibbuuna al-maala hubban jamman dañoo bëgg alal ba sago ba tàggoog seen sago waaye alalu jëri moom doo ko lekkee da nga torox fii danga nga torox fële mbokki jullit ñi مني ألك يالله ما كخم ألك يالله ما كخم إن الله عنده علم الساعة يالله نيانا ألك ما كخم يونغ بوغ خم ألك لو فخيو يالله ني من ما كخم يونغ ني كو خم ناكو نيما يالله لا وينزل الخيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس نين أمول بين بكن سيكو سوف بخم ما ساتتي وغدا لان غي فيك يلك نينا كين خمكو سكو سوف كين كين كين كين خمكو سكو سوف القران لا باي ارين تامل فان غي دي كين خمكو فم لا فيك رك دو ابي جوتي رغا ديم واي نك ان الله عليم يالا خمنا يوي موم خبير موي اكسبير بي mu ñu yéen mbokk jul ñi na ngeen moytandiku na ngeen ragal seen borom te ngeen ragal bis bi nga xam ni wala ngeen bàyyi xel si bis bi nga xam ni waajur wi mënulu fa doomam dara gisoo sëñ moon yaay boo daabaay bu baax mi njaboot yi da leen a ñaanal rek waaw laa dan saadina abradan atqiya ñaan rek la fa man ndax bis nag jàng la yëgg si waalidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an waalidihi shay dom ji tay mënula fa papa yi dara inna wa'da waadallaay haqq li yàlla digee deug la te moy am li yàlla wax deug la te moy am inna wa'da xaqun haqqun muni kon fala taxurannakum bum len wormuk hayatud dunya adina bum len leen adduna bu mu leen wor wala yaxurannakum billaahil xaruur gaa yi wore tamit bu ñu leen wor mbirum yàlla xam na ni adduna day wore xam na ni tamit gaa yi nekk si bi dañuy wore moo tax mu ni falaa taxurannakum bu mu leen wor mukk alxayaatu dunya adduna waaye nag wala yaxurannakum bu mu leen wor mukk billaahi si yàlla xaruur mbokk yi dellu leen si yàlla mbokk yi dellu yalla si yàlla mbokk yi dellu leen si yàlla te ngeen moytandiku ñi nga xamni dañoo sanku tay sanké ba dañu ci jamono sanku ba nopi di sanké alquran ne mo ngeen bu gaay am ñu xam dañoo sanku ba nopi di sànke doo sàmmul nag doo sàggantul nak sa waxam ju neex ak mbubbam mu rafet ak eloquence bi mu am ci wax fasaha bi mu am ci wax boo ñëwee rek mu jabar mu jibar la daaneel la sànq la te fekk moom mu ngi si dafa sànku ngeen bàyyi si xel dafa bokk dafa bare sama mbokk yi mu ne na ngeen moytandiku si réew mi fitna na ngeen moytandiku ci réew mi fitna yàlla mi ngi leen di moytandikuloo fitna ndax nee na wattaqoo fitna moytandiku leen fitna laa tusibanna allazina salamu minkum xassa du yem ci bopp borom gaa yi du ñu jógee di yàq rek attan nañoo yàq sama oto bi kala bañ say noonu dañ ñëw yàq ko doo amee sa boutique it ay ay matériel am fa ñu amul matériel dañ ñëw toj ko jël matériel ba loo si man moo tax alquran ni laa tusibanna allazina salamu minkum xassa waalamoon na ngeen xam ne anna allah yàlla sadidul xiqaab bi soo targi mbugal moo di yàq nga day métti mbokk yi ñu jeexale wax ji ci aaya bi ci alquran du ñëw rek day doy muy man amila saalihan képp koo xam yaa ngi def lu baax min zakat moo xam góor nga aw unsa wala jigéen nga ñaar ñu fi nekk وهو مؤمن تفك من نيك جوليت دينكو توباب يي نصراني كولين داك ديف لو باخ كين داك لين ديف لو باخ القران داني وهو مؤمن تفك من نيك شوي ديف لو باخيت تي ديبو وك شريعه تاميت فوفو غي دغو لان لا نسي فلا نحي ينه حياه طيبه يالا دا نسي فاي تران يا ادينا yàlla da koy fay ñooñu dañuy dugg fa leen nox yi yannahu xayaatan tayiba dund gu neex danaa leen ko jox moom la ñu bëgg ñoom waaye nag wala najziyannahum danaa leen fay ajrow seen yool mooy jullit ñooñee di def lu baax danaa def teraanga si ñoom si addi fii danaa leen defalit yool ci àllaaxira bi ahsani maa kaanoo yaamaluun lu gën a rafet lañ doon def gis nga du fekkee nekkoo ci islaam fonkoo diine nga dem sa jàkka ji jox ko fa million wala nga dem sa daara ji jox fa million yàlla dala koy fay xayaatan tayiba foofu ngay dugg dana la yokk wërsëg teraanga waaye nag wala najziyannahum ajrahum foofu doo fa dugg ndax ngëm nekku fa kon mbokki jullit ñi ñoo ngi nuyu ku melni ni biram suley waxtu ne dana koy wax du sama ak mom waye sama ak wajuram la te nit dula la teranga dang ko sant ndax teranga ak yegle lolou moy tax mom ma di sant di ko ñaanal jam, di ko xamal ni man amila salian fali nafsihi ku def lu bax sa bop nga ko defal di leen xamal ni tamit am na ñoo xam ni teew nañ fi ñu naan chef d'état moo leen fi yabal moom lañu fi teewal si loolu tamit bég nañ si kontaan nañ si bu baax a baax gis nañ si waa police ngeent ak ah, yabal na leen fi Gora Diouf Thioune gis nañ ko Boubacar Camara mel ni Babacar Touré kon ñoo ngi leen sant di leen gën a bu baax Eh, di sante tamit ak di ñaanal Omar Badian da ngeen ko ñaanal Yalla ndax fi la da nek da fekke waxtaan wi da ngeen ko ñaanal média bi ñoo ngi leen sante di leen ñaanal fu ngeen bëgg ag Yalla ngeen fa àgg mu melni prestige xaar leen señ bi ñaan nangu leen ñaan teelu leen amin ya rabbal alamin إياك نعبد آمين يا رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا رب العالمين آمين يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك